laylatul mawlidi lasi kana lidi ne sororon bi yawmihi wa ziha salli ya rabbana wa sallim ala ma هو للخلق رحمة ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وضحاه صل يا ربنا وصل ولما هو للخلق رحمة وضحاه ليلة ذات المولد الذي كان لدي نسرور بيومه وضحاه صل يا ربنا وصل على ما هو للخلق رحمة وتوالى البزر الهواتف أنقار ولد المصطفى وهاك الهناء sëriñ bi ñu ngi ñëw fii tey ci sa keppaar ñëw fii tey ci sa wet comme ni ni yàlla suturaalee ay at ñuy ànd ci sa keppaar di gungante ak yow fan yu màgg yi nga xam ne képp koo xam ne baaxoo na di ñëw ci sa keppaar xam ne guddi yi guddee loo xam ne yemalewoo ko ak leen ñu ñëw tey ànd euh, mboolem ñi nga xam ne ñi ngi ànd ak ñoom dimbalante ak ñoom ci biir dëkk bi yëpp ñëw ci sa keppaar pour ziyaara si la waaye itam pour ñëw ndokkeel la ci ay yaam mawlud yi nga xam ne ci lañ nekk nga xam ne ñun ñëpp loo gàtt-gàtt alliwoo dab ci ne Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu bu weer wi mosoon a teru daana wone moom bëgg ak cofeel gi mu am yonent ji am ci yonent bi ba wane na weeru boppam yu telu loolu moom la nàmpatal ñëpp ba tax na su gàmm jotee fii ci Medina ñëpp danañ ànd di ko fuglu ba keroog ñuy dem ci yowmul mawlid yàlla defal ñu sutura nag ñu daan ànd ak mboole seen ñi nga xam ne tey ñi ngi fii ci dëkk bi yëpp daan fuglu fani gàmmu googu daan fas yéene heure bu nekk itam ndigal yi nga xam ne ak orientation yi nga xam ne moom nga mas di ñuy jox te musul changé ñu fas yéene heure bu nekk buñ ko xasee ba jël ci yow nekk ci loola ba keroog ba nga xam ne nii jeexal nga gàmm ci jàmm loolu moo tax sëriñ bi ñu ñëw ci sa keppaar comme niñ ko daan defee jàpp ne war nañoo tàmbali liggéey bi ci jëm ci fani gàmm ñu ñëw fii ci sa kanam comme niñ ko daan defee at mu jot jël sa orientation yi nga xam ne xam nañ ko ca jël nañ ko waaye ñëw wan la na incha allah ñi ngi taxaw pour fas yéene liggéey yooyu incha allah ñu tàmbali ko bëccëgu tey loolu moo tax ñu ñëw fii ñi ngi ànd ak car macha allah ñi nga xam ne tey bu ma leen tuddee rek yaakaar naa dana tax nga xam ñi ñu ànd ak su ma ci tuddee Cheikh Aboubacar bu al xalifa Cheikh Ahmed Tijani Ibrahim Niass ànd ak Cheikh Moustapha bu Cheikh Ahmad Dame Ibrahim Niass ànd ak Cheikh Moustapha bu Cheikh Mahi Ibrahim Niass ñooñu doy na pour ñu yob ma jàll Cheikh Ahmad Tidiane ngi nii moom itam Murtada ak euh, bugguma lim imam Seyda bu ma jimee damay jum ñëpp rek njaboot gi daal da jàpp sëriñ bi ne ñëpp ñu ngi nii doom yaa ngi nii sët yaa ngi nii taalibe yaa ngi nii ñëw ci sa kanam ñëw ci sa suuf ngir incha allah lépp li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy sa bëgg-bëgg ci yow ci bis bi ak li nga xam ne moom la population bi jàpp ne war naa mën a yombal pour bés boobu mën a yemb ci ñoom loolu moo nekk suñu mission tey ànd ak ñoom ñi ñëpp ñu di ko def loolu moo tax incha allah ñu ñëw ñi ngi lay ñaanal yàlla nga yàgg ñoo guidee yàgg ñoo digal ñuy def te yàlla dimbale ñu dimbale Sénégal def Sénégal jàmm ndax réew mi ñun ñëpp ci lañ nekk kon jàmmi Sénégal mooy suñ jàmm ñun ñëpp ñu ngi ñaan nga ñaanal réew mi jàmm ñaanal réew mi dal ñaanal réew mi koom-koom ñaanal réew mi yàlla xàllal ñu ay yoon yoo xam ne mboolem jafe-jafe yi nga xam ne dafa am ci àdduna bi tey yàlla génne ci Sénégal te loolu amul benn sikk ci ne boo tawassulee ci ayaam yi nga nekk def tawassul ci Mawlana Cheikh Ibrahim yàlla dina ko def ci xam nañ ne loolu rek ndax sa wax yëpp mooy jàmm ak liggéey ak dal ak ak jom sa mission xalaat sa sa mboolem communiqué communication bi ngay def yëpp du génn foofu nekk ci li nga war a nekk liggéey taxaw bañ jéem a doon góor jéem a fexe ba saalum gi nga xam ne ay góor dañ fee mas nekk toujours ci wéet ak wéetaliku yëpp dañ ñu war faral di wax nañu na ngeen fexe ngeen doon ay góor na ngeen fexe ngeen doon ay góor yoo xam ne dañ na ngeen fexe bañ naw leen ci biir réew mi waaye naw leen tam ci biti réew nasiha yooyu nga xam ne mi ngi ñuy jox heure fu ñu toll danañu tasjii pour ñu fexe xam ne ñun nii dañoo war a des nekk ay góor bi may jàng commerce fii ci Kaolack ba am benn mbokk magum taalibi Cheikh Ibrahima radiyallahu bu am bu ñu nekkoon ci keppaaram heure bu ñu daan dem di ñëw daf ñuy tàccu nañu waaw leen góor ndax Maulana Cheikh Ibrahima moom dafa daan wax ne lu dul ak nëbbu wutu nit mën na ko am kon nëbbu wutu faatat inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kon ñu ngi jàpp ne conseil yooyu ak xalaat yooyu ak wax yu riis yu rëy yooyu mooy encourager nit ñi moo tax moo xam ñu teew moo xam ñu fàggu dañuy bàyyi xel ci loolu mu di ñu dimbale fuñ tollu xam ne dañoo war a des nekk ay bañkat des nekk ay góor des nekk ay xuddaam comme ni nga nekkee xaadim waaye ñu ñu des nekk ay xuddaam ci sa ginnaaw nekk sa ay naib ci sa marxala boobu wala martaba boobu nga xam ne yéeg nga ci ñun ñu des nekk ci ne sa ay naib te loolu ñu ngi lay ñaanal yàlla nga ñaanal ñu ko ñu ngi def tawassul ci Mawlana Cheikh Ibrahim pour yàlla dimbale ñu bu fekkee at yu bari ci sa kanam yàlla dimbale la ba mission yi xalaat yi ambition yi yëpp yàlla mën koo yembal ñu ngi lay ziara ci sa buntuñu ñu ziara mboolem njabootu Mawlana Cheikh Ibrahim gi yëpp nag doom yeeg topp yeeg mu xaddam yeeg ñëpp rek. yàlla na yàlla def jàmm ñu ngi lay bu baax salaamaaleykum wa rahmatullah ay yoo xam ne daf ñu daje ñun ñëpp rek pour ñu manifester waaye terewul kuy ñëw fekk sa xol a ngi gàmm sa xol a ngi àgg ci bëgg yonent foo xam ne boo sañoon gis ko nee na moom yonent toog na ci biir ay saxaabam ne ak a neexoon ma gis samay soppee ñu ne ko ah ñun duñ sa soppe mu ne yéen sama àndandoo ngeen mais samay soppe mooy ñii ñëw seen gannaaw bugguma ni ngeen ma buggee ku leen laa yoon joxe àddina bi ci biiram pour gis ma dinañ ko def nga xam ci yoon lañ hmm? bu yonente ñëwaatoon tey dina fi fekk xol ko bëgg bu yonente ñëwaatoon tey dana fekk nit ñoo xam ne pare nañ pour liggéey ci gannaawam lépp loo xam ne dafay dundal mission am bu fi ñëwoon tey itam dëgg-dëgg dina xam ne bàyyil na doomu aadama lum langaamu te la ngaamu ci te dëgër na mooy gëm yàlla gëm yàlla rek mooy buntu bi nga xam ne moom la yonente indil nit ñi pour ñu langaamu ci buñ ci langaamoo yàlla nee na euh, euh, ku jàpp ci buumu yàlla jàpp nga ci buum ngoo xam ne du dog ku jàpp ci buumu yàlla jàpp nga ci buum ngoo xam ne du dog euh, te loolu ci lañu suñuy bàyyi ak suñuy maam yare langaamu ci buumu yonent yàlla Muhammad gi nga xam ne moo ñu ko indil jëlee ko ci yàlla te li ci gën a fés mooy bëgg yonent yàlla Muhammad ndax bëgg yonent yàlla Muhammad dëgg-dëgg mooy dëgg-dëgg diine ndax boo ko bëggee rek di nga ral diine mu la indi ci jéem a sóobu def ci sa mbooleem engagement moo tax bu Sénégal gàmmu jotee Sénégal yëpp bëgg yonent ak fu ñu nekk ñoom ñëpp ñu ngi gàmmu ci seen xol ñoom ñëpp ñu ngi gàmmu ci seen yëg-yëg ñoom ñëpp ñu ngi gàmmu ci waxtaan ak seen bopp waaye yemuñ foofu dañuy génn seen alal di ci def Euh, fu ay gan di daje ñoom ñëpp kenn ku nekk yaa ngi góorgóorlu yóbbu gan ñooyu ñëw ngir yonent ñu ganale leen comme ni Njaay di def ak yeneen ak ak yeneen ak yeneen kudu kudu Njaay ñoom ñëpp ñu ngi koy def ngir ganal ma ngir bëgg yonent yàlla Muhammad sa gan fu mu nekk ñun ñi mën ganale dinañ leen ganale ndax sàkku ngërmande yàlla ci yow ci sa buntu sàkku yërmande yàlla ci sa bunt parce que yaay buntu yàlla wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina daraja boobu moom rek moo ko am ci yoon wa ma mhm. arsalnaaka illaa rahmatan lil alamina yërmande googu yàlla moo ñu ci boole yàlla moo ñu ci boole ndax bu ñu ci boole wutoon ni ñuy fonkee gàmmu di ko di ko ko bëggee kenn ku nekk gàmmu ga gàmmu ga gàmmu ga gàmmu ga fee gàmmu gi jeexoon amatoo beneen programme ah te lépp loo mën di ko def ci gàmmu gi ndax nit ñi kontaan gani yonent bi kontaan gani gàmmu gi réussir nit ñi dellu ci seen kër ci jàmm yëpp ku nekk yëg ci sa xol ne man def naa dara bu yonent ci ñëwoon itam la même chose moom lay def dinaa ko màggal watu azziruhu watu waqiruhu loolu ci laan ci ci lañ nekk yal nañu ko yàlla nangul tànk yi euh, yëngatu bi rafet na tànk yi rafet na te loolu yëpp bëgg baax tax ngeen di ko def euh, dëgg la Mérina rek Mérina dafa nekk lieu bu ñuy gàmmoo miin ko mais kenn ku nekk yaa ngi gàmmu ci sa xol kenn ku nekk yaa ngi gàmmoo kenn ku nekk yaa ngi yëg lii waa Mérina yëg yëpp yëg euh, mooy bëgg yonent yàlla Muhammad manifester ko loolu rek la waaye amul amul amul amul fii lañ war a gisee yonent loolu yëpp amul waaye li am yonent ci saxal nga koy gisee ah adduna bi nag yu bari yàlla buub na leen eh, ci teranga ji yàlla may Sénégal bu ngeen génnee fii ci baye bi dangeen ngeen gis façon xeet bu nekk te ñoom ñëpp gëm nañ ne bu ñëwee Sénégal di màggal si yonantu fa la ko yàlla di nangu leen loolu teranga bu yàlla may Sénégal yal na ko Sénégal yi xam comprendre ko xam ne gan yi di ñëw ñëpp dañoo gëm ne bu ñëwee Sénégal liñ bëgg am ci si yonent nañ ko am te yàlla na leen ko yàlla defal te yàlla def leen koy defal ndax yàlla du def ci xolu nit loo xam ne du dëgg yàlla du def ci xolu nit ba mu def ci alalam rek loolu dëgg la kon nag yàlla na yàlla dëggal ci suñ taxawaay yàlla na ñu yàlla dëggal ci suñ diine yàlla na yàlla dëggal ci bëgg yonent yàlla Muhammad yàlla na ñu yàlla dëggal ci waxtu wu nekk rek ñuy sàkku loo xam ne ngëneel la pour ñun ngëneel la pour Sénégal ñi ñaan pour yéen autorité Kaolack yi ñi ngi ñaan itam pour autorité Sénégal bi yëpp yàlla defal leen tawfiq yàlla dimbale leen ba yàlla jaarale ci seen loxo barke bi nga xam ne moom la Sénégal di gént pour am ko pour Sénégal yàlla mën na koo jaarale ci seen loxo yàlla na ko yàlla jaarale ci seen loxo yàlla na yàlla dimbale leen. toogee ba toll ci bis bi ñu déplacé wu ñëw ci moom seet si ko waaye également lancé itam liggéey yi nga xam ne moom lañ war a ànd ñun ñëpp jàpp ci def ko ca mu nekk aada boo xam ne mi ngi def léegi ay at at mu jot. dañuy àndandoo ñun ñëpp su fan yi gàmmu jotee pour jàppalante ak askan wi ci ndigalu sëriñ bi waaye ak jàppalante itam ak mboolem ñi nga xam ne ni dañoo jàpp ne ñi ngi wër Medina ak li jege Medina ba fexe ñu gàmm ci jàmm ak salaam. loolu moo tax ca xam ne jàpp nañ ne gàmm bu tombee ak nawet dana bëri ay jafe-jafe ni Afrique bindoo wala ni àdduna bindoo sax laay wax ku ne xam ne ne nawet dafay ànd ak jafe-jafe moo tax ñu teel a jël ay matukaay. pour mu fexe ba li nga xam ne mooy matukaay yi nga xam ne jàpp nañ ne buñ ko jëlee wala buñ ko tegee dana wàññi yenn jafe-jafe yi wala dana wàññi yenn coono yi moo tax ñu jël ko pour def ko moo taxit ñu jël ko pour àndandoo ñun ñëpp ñëw fii ci kanamam comme niñ ko baaxoo sàkku ci moom ñaan mais également jël ci moom ndigal jéem a fas yéene dugg ci biir dëkk bi jéem a fas yéene it jàkkaarloog population bi incha allah kemt laayal lañ man ñu def ko ci incha allah loolu moo tax ñu ñëwoon ci sëriñ bi tey mboolem njaboot gi nga xam ne nii tey car macha allah wax naa léegi ci sama discours ma ne ko su ma la su la présenté ñaar wala ñett rek dana firi li ñi ànd ak ñan la. te loolu mooy li xew yaakaar naa ne tey mboolem askanu Medina mboolem doomi Medina car macha allah génn nañu ñun ñëpp ñu àndandoo comme niñ ko daan defee at mu jot àndandoo ñun ñëpp daal di ñëw ci sëriñ bi àndandoo ñun ñëpp. ci keppaaram àndandoo ñun ñëpp pour ñëw jël ci moom ndigal incha allah pour fas yéene dugg ci biir dëkk bi. li mu def génnal boppam lii kenn amut ko lan nañ def ci yow. waaw loolu lu def lu may wane toujours rek ne ndoomoo gi nga xam ne fu ñu fekk loolu la ñuy wan ne def ñu téye def ñu doomi boppam daf ñoo def ñu njabootu boppam daf ñoo téye wan nañu ne lépp luñ nekk rek dañu ci jàppalante ak ñun nekk ci ak ñun. parce que xam na ne duñ nekk mukk lu walis ay ndigalam duñ nekk mukk loo xam ne bu ñu ca fekkee dana na accam te loolu moo tax incha allah lépp luñ nekk rek da ciy nekk ak ñun jàppale ñu ci mais également ñemeloo ñu ca may ñu ca fit ba lépp loo xam ne war nañ koo def ñu def ko loolu moo tax incha allah bi lii xewee du ñëwee ci moom mu ubbi ñu ku xam sëriñ bi xam ay habitude xam nga ne heure yi du yi mu ubbi waaye dafay ubbi incha allah génn boo dénk ñu ñaanal ñu waaye également génn laat boppam ba ñëw ci mbedd mi loolu lépp li muy wane rek mooy cofeel loolu li muy wane rek mooy ñii samay doom lañ donc lépp luñ nekk rek man maa war a nekk seen kanam pour ñemeloo leen waaye man maa war a nekk seen kanam pour defloo leen man maa leen war a tare man maa leen war a sant loolu rek lay wane moo tax def lu may encouragé ñu waaye encouragé itam mboolem njaboot gi parce que itam génn gi mu génn li muy wane rek mooy yéen doom yi yéen topp mi yéen ñëpp na ngeen góorgóorlu yéen ñëpp na taxaw pour jéem a fexe ba ayaam yi ñu nekk muy ayaam mawlid ñu def ko ci jàmm ak salaam te dama wax ne lépp lu ñuy digal rek du ko teg mooy dul ci alxuraan ak xadis ndax lii ñu nekk di ko def tey ku jàng ku ne xam nga ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ne an nadaafatu min al iman ca liñ jóg tey tey pour des ko ak fan yi incha allah mooy lépp luy yembal wala muy setal ci jaar jaar yi wala lépp loo xam ne dana yembal kër yi wala lépp loo xam ne dana tax nit ñi mën a ñëw ca xam ne ci dëkk bu sell dañoo war a dox ci suuf su dañoo war a dox ci ay mbedd yu sell loolu ci la ñuy encouragé moo tax incha allah loolu rek ci la ñu nekk ci loolu rek lañ pare incha allah pour Gorel. waaw seetlu nañu matériels yi ay fukki at ñu ngi ànd ak yow mais ren matériels yi dafa jéggi dayoo ay cataplan camion yu bëri na entreprise mel tali lu tax nga def loolu. waaw loolu li ma wax léegi rek lay wone xam nga ñun toujours damay wax ne ñun benn groupe lañ ñun ñëpp benn benn benn say lañ ñun nekk ay doom nekk ay taalibe nekk ay soppe kon lépp loo xam ne dañ mën nañ ko Mérina war ko umpule loolu moo tax lépp luñ mën ci suñ man man lépp luñ xam suñu suñuy pexe ak suñuy relation bu bés bi jotee dañ koy faral jël utiliser ko ci bés yi ba nga xam ne incha allah sëriñ bi li mu bëgg a dégg wala li mu bëgg a gis incha allah dana ko dégg dana ko gis Médina Baye sans ndox sëkk moom dafa fas yéene amal te da ko def ay année waaye am na lu ca daan topp buñ ne suba la ginnaaw suba la ba ci jouru gàmmu gi ci joxe ay ñam lekk ak yu ni mel ndax da nga koy wala yu ni nga koy na comme niñ ko daan defee daan nañ def buñ demee ba mu des trois jours wala quatre jours daan na am point de presse bu ñu daan def am na ay matukaay yoo xam ne incha allah comme niñ ko daan defee daañu ko organiser comme niñ ko daan defee daañu waxit incha allah matukaay yi nga xam ne moom lañ jàpp ne moom lañ war a jël ak matukaay yi nga xam ne moom lañ war a taxaw parce que li ma jàpp mooy képp koo xam ne da ngaa nekk ci ba liggéey lu baax amul pertement donc comme liggéey lu baax amul pertement nag képp ku ci nekk da ngay ñaan yàlla sax ci soo ko munta yokkit nga fexe la nga man nga def ko loolu moo tax lépp loo xam ne daanañ ko def ci lu baax dañuy fas yéene ñaan yàlla mu may ñu kàttan ñu koy def te jéem di xeeñtu lu baax ñu toll loolu moo ñu indi fii tey xeeñtu lu baax ak lu baax moo ñu indi ci keppaaru sëriñ bi moo ñu indi ci jaww ji nga xam ne fi na Maulana Cheikh Ibrahim doon nokki ca ku ne xam na nokki ab xutbu li muy def moo tax ñu ñëw ronwaat ker gi renwaat jaww ji raw ronwaat pays bi renwaat deretam bi renwaat askanam bi parce que fii ñu taxaw nii tey car macha allah ñii taxaw ñii ñëpp tey ay deretam lañ te loolu li muy prouvé rek mooy xam nañ ne liñ nekk lu dëgg la ànd bi ñu ànd lu sincère la yàlla moo ñu tënkee ci keppaaral bàyyi ñun ñëpp ñu àndandoo di jàppalante di dimbalante tawaan aw këram muy naaj ak muy ker muy taw ak ñàkk taw dañuy ànd ci loolu ànd gi ñu ànd ci loolu nag moo ñuy encouragé toujours ci xam ne dañoo war a taxaw taxaw moo ñuy encouragé toujours ci xam ne def rek moo ñu war quelle que soit la situation dañoo war a def parce que defuñ pour Paul ni pour Jean dañuy def pour xidma nu bi sallallahu alayhi wa sallam jaaree ko ci buntu Maulana Cheikh Ibrahima mi nga xam ne wax naa léegi ci biir ma ne bu weer wi daan teel ku ne dégg na li mu daan bàkkee boppam mooy jàpp na moom na weer wi sax moo ko moom li muy wane mooy xër ak bëgg ak fi mu toll ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu moo tax duñ def lu may incha allah jéem a fuglu loolu ànd ko ak ñoom ci suñuy guddi ak suñuy bëccëg incha allah ba keroog sëriñ bi di ñu jàngal salaatu faatiha pour yi. laaj bu mujj bi mooy tey lii nga def ay at ci ginnaaw nit da ka daan gis jàpp na ki poste la bëgg wala état moo ko jox tey poste amul élection yi fi jaar malgré situation yëpp mel na ni rahma sociale ci gàmmu yi ci nagu gàmmu ci enveloppe ci taxaw askan wi ba léegi da taxut nga changé. waaw xam nga politique politique la tudd moment bi ñu nekk nama yàlla jéggal sax ci kàddu gi euh, politique moom ay jamono la liggéeyal yàlla amul jamono amul heure amul saa lii ñu nekk rien ak affaire politique rien ay affaire couleur politique lii ñu def tey fii boo fi xoolee am na fi ay gone yoo xam ne ay gone yi Pastef lañ. am na fi ay mag ñoo xam ne fii nii ay waa Pastef lañ ma xam leen bu baax ñuy sama xarit di samay soppe donc li ñuy dajale tey du mbiram politique li ñuy dajale tey mooy ñu askan wi ñoo soxla wante li ñuy dajale tey mooy dañoo nekk pour liggéeyal Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu ñun ñëpp ku ci nekk la nga xalaat ca leneen wala la nga gis ca leneen loolu yow la bisab tey bi bisu yonent bi la liggéeyal Mawlana Cheikh Ibrahima moo ñu fi indi ci loolu lañ nekk nekkul ci leneen leneen loo xamante ne nii leneen la ak keneen wala keneen ku nekk ci leneen a ah, nit ñi nag axraarin fi anfusihim man yatasarrafu kayfa yashaa'u ah, loolu mooy lu wér ku nekk soob na nga def la nga xalaat ak na nga xalaatee ñun daal liñ xalaat mooy liggéey bi Mawlana Cheikh Ibrahima lañ doon fuglu moom la ñuy continuer du def ça n'a rien à voir ak politique ça n'a a à voir ak couleur politique ça n'a rien ak nguutam àdduna mburam bu àdduna lu gàtt la jamono bu gàtt la àllaaxira moo jiitu woon te mooy mujj li des ci diggante bi ci la politique ak leneen ak leneen ak dugg ci diggante bi amul solo ay mbiri jamono la day weesu lu weesu dañ koy fàttali ginnaaw mag daa ma maata wa ama mana ma sabal naa fal xayru ma weesu ma xaara wa asalaamaaleykum laylatul mawlidi lasi kaana lidi ne sororon bi yawmihi wasdiha salli ya rabbana wa هو للخلق رحمة ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وضحاء هل يا ربنا وصل ولما هو للخلق رحمة ليلة المولد التي كان لدي نسرور بيومه وضحاء صل يا ربنا وصل على ما هو للخلق رحمة وضياء وتوالى البزر الهوات بأنقار ولد المصطفى وهاك الهناء